pour conférences de principe, quoi. Ah, d'accord. waaw bi nekk cest nekk parcelle parcelle ban côté Une t 16 hein Une t 16. Une t 16 hein. ans. une t 16. Oui, d'accord Inch'Allah. Les comme je te laisse informer qui, hein waaw vous vous bu soobee yàlla. waaw léegi les les les euh, les journalistes. Moi, je me charge de de du percum. bon comme d'habitude bon comme yow yaa ko doon yow y a leen informer parce que là man comme demain, je suis pas hein. ouais je suis pas en mesure de de comme suivre y a ok yow encore ko affiche peut-être le plus vite possible man je contact quoi. voilà voilà. ok d'accord Ok. ok

mu lijjanti woon nga trois yooyu la nga waxoon wala trois lijjanti woon. fan <laughs> léegi xoolal. waaw ba xam. passeport passeport baa kii soo ma ko mënee dimbaleel. kii kan sama mooy doon gérer sama doom yi. léegi man sama bosa ngi nii parce que mi mais bii pareil quoi. waaw dugal ñaar yi. sa bos ak sa bos. waaw boo boo a dimbale rek coow li même la. ah muy sept cinq cent. man du problème xaalis bi mhm. mais dama bëgg au moins comme yow da nga tegal ak sa jabar ji expliqué. loolu tax ma bëgg xam nga rek la loolu quoi. ma kii sama waaye la. ah baax na sama gain la. xoolal dafa gis xam li moo tax xam nga bu doon euh, kër gi day voyage ñu mën ko dugal ut ko utal ko.

xam nga man boobu pour man jaay bi gën a gaaw mooy ma koy dawal. ok gars yi gis ko xam nga baax de ci. léegi yow kañ kañ kañ wala kañ nga xalaat wala. Hmm, léegi bàyyi ma déjà ma ma ma parce que lii dama il faut ma toog ak la consul direct. Hmm, waaw moom laay toog ak direct quoi. mais état comme ay artistes lañu ko la ñu. waaw dama leen di dama koy wax ni ko yow suñu suñu manager nga.

non dama koy sànni ne ci biir. bilaay da bu pare sànni ko. non damay sànni saxaar bi du dugg. waaw ayca. xam rek oto booy jaay doo ko doo ko mën a a. gars yi may laa doon jënd dama yónni. ñooñu lay xaar dama jox. gaale taw booy taw bu ñu rek dama changé cuisinière. dama foogoon ay garde corps la. man dama mos a gis garde corps. man kay ma ànd ak ma xamee ak léegi. billaay wal kitaab ma xarit man aw xarit. Mm, mm, mm, yow yow man daal ñun laa la xamee. xamee xamee waatu ma aw ma xarit man kenn du ma gis ne ma ànd nga ak. déggoo ma ne ñun laa la xamee xamee waatuma la ah, kenn ci àdduna. parce que mës nga ma dégg fen man ñu ne ceer wala ceer ne la. sax ku la xam. <laughs> mës naa am benn muy enquête ci woon. mu ngi mu dem ci nga xam ne moo dàq taxawal Sénégal mu ne ko ceer mu ne mais man li ma jaaxal waa ji këram.

parce que xamal luñ la xamal. benn booy booy bu ku ñëw ci ma xamal lan laa koy wax ku rafet xol la ku yëg doomu aadama la ku bëgg nit la alalam du ko boole kenn mën na ko joxe toog. Mhm. li laa lay wax ni loolu laa xam ci moom day julli jullit la day julli mhm. dafa bëgg jaamu yàlla bu weesoo loolu mënu mënu ma waxaat leen ci yow te boo te bon te loolu la tamit parce que am na loo xamante ni liñ naan lu dul dëgg du yàgg macha wax nañ wax ci lii. lu dul dëgg du yàgg. nañ wax ci lii tey boo nekkoon ci leneen. heure bi waxatuñu ko. nañ nekk nañ wax ci lii lii bëgg naa ko pour sama jamono. barki Serigne Touba Mbacke yaa ko fi bàyyi. 15. 15. yow lii xam nga 2015 bi booy gaa yaa ngi ko teg fee 2015 sama nit nga. gaa yaa teg fee di ko jaay lan di ko di wax ay 18 waa ji fa la taxaw. bii 2000 lan la nga ne. 2017 60 000 kilomètres. ok. am. Euh, curseur Alpha xamoon sama frère Alpha ah? Alpha Mara. wow mu fi anam. fi mais doom doomu tukki. Alpha. bàyyi ma njëriñ. mën naa bàyyi ndey kii saxal ndaw si dem ngay mais Alpha dafa sob de Alpha sëriñ est-ce que jéemu jël euh, passe am joxe ko fenn bam bam non non takk maanaam dugal ko parce que alfa Alpha dafa sopp hmm. non dama lay wax de nit ku baax la dañuy déggante et tout boobu bi xamante ba léegi dañuy déggante nit ku baax la mais Alpha xam nga yow tey jii ni nga mu ne toog xool fan ngay dugal sa bopp fekk ci fekk ci ñeneen ba man yow xamuloo ndax ci diggante bi am na fu Alpha dem ba dugal fa passeport am xam fi may waxee naa laaj ko xamal noo koy laajee nag. Mhm. nee ko bu ma nëbb ko man est-ce que xam nga yow bëgg nga bëgg nga diplomate. diplomate waaw. doo am benn gain bu may tegal business. moom ma traité la mais li muy laaj cher. ñaata. waa ji lay laaj. 6 millions. lay laaj diplomate. ndax Serigne Touba te lu lu existe lu am. ñaata temps lay def. ba ñaata temps. ok bu ngeen waxee ba nga ba dóor ko avance mu indil la sa diplôme ci une semaine. ci semaine. maa la wax. ayca. ak Serigne Touba Mbacke six la gars yi. léegi bii nan lay def ak bii. nan ngay def ak bii. Hmm. wala moo yor ñaar yëpp. nga yor ñaar yëpp. six lay laaj. Hmm. waa ji six lay laaj cinq dina jël cinq. mën na jël cinq moom ndax sama waay muy sept cinq cent yëpp. sama waay la de mën na ci mais yow booy wut diplôme da ngay wutal sa ak sa jabar moo gën. nga xam doo dootu loo am benn. non booy bàyyi leen foofu rek ñoom ñun moom sa waay. Hmm. nañ am séjour rek. wax nga dëgg de bu ñu amee laaf dañ lay topp. ngóob foo jëm ñu dem foofu. mais diplomate aussi man je suis que du indi ay problème ak man problème lay bañ de. problème lan indi. Hmm? problème dem di voyage ñu naan la foo jëlee lii yëg. te international la fépp ngay dem. fu la neex ngay dem. cinq une semaine mu def. international kay lu leer laa la wax. anyway léegi yow lii lii deux millions la. waaw. Hmm? Mhm. comme que yow lijjanti woo trois millions yële. bàyyi suba. ginnaaw suba. ginnaaw suba ma ma allo. le temps man waaw cooju sama doom bon kan la ci waaw lu mu def. mais dëggalal sa bopp. waaw jaay na moom mu ne ma bëggul dem kër maam allo. Uh-huh. daa bon.